Benno Bokk yakar waye tam di sargalale jigen ñi nga xamni ño andal ak mum ci liggey bi fa seen cee suñu borom ci li nga xamni ne ñu waral tay aduna bepp daje fi kilifa yépp ñew fi tay ñu dend ak suñu wét euh, ko xamantani ni ko rek nga xamni diiné rek moko tax di ak lepp lo xam day tax ci jëm ci karam mu am ak nak ñepp nak rawati nak ki nga xamante mom lañu sét tay di monsieur Mamadou ñing di Cheikh Ahmed Saloum ñing Nasruddin bok ci ñi nga xamanteni komuniti ñoo yoré communauté de communication grand magal de touba waye don missionnaire bi nga xamanteni dafa nek ci njabootu serigne touba khadim rasul ak islam bi yépp cheikh ahmed ñi ngi lay dalal bu baax euh, di di la gërëm di am contentement biñ la fi fekkee tey ma teew fii euh, fekk sama xarit sama soppé sama doomu ndey doomu ci mag bi di mohammed ñing di liggéey liggéey bu am solo ci askan wi moy yar goné jangal jàngal leen xamal leen da xam ngeen né euh, ndaw ñu ñoy avenir ëlëk ba ca des it ci eh, côté liggéeyam aussi muy def social ci réew mi na ci jigéenu Thiès eh, kenn ku ne xam ne léeg-léeg mu yëkkati ay som yu am mana séddale ko jigéen ñi nga xam ne dañoo nosu ci ay GIE loolu di initiative yu am solo ndax eh, jigéen ku leen dimbali war nga leen dimbali ndax yàlla moo leen bind ci néew doole waaye yàlla aussi bind ci jom ak am pas-pas am taxawaay xëy na bu sa ndërënewee bu ñu amee ñu mel ni xamadu loolu dina ne jàppale bu baax a baax te kuy doomu Thiès rek wala kuy doomu Sénégal yaa ngi bàyyi xel liggéey bu am solo bi nga xam ne mi euh, te lépp yiw la lépp it ñu koy sotti ci ndabul son excellence président Macky Sall euh, di sama xarit di sama doomu ndey di sama lépp euh, wax naa ko keroog ca sama forum ba ñu leen PSE bi nga xam ne moom la jël def ko 2012 ba 2035 xam na ne sax xëy na du fekk 2035 waaye am vision bu sori Sénégal moo ko moo moo tax mu def ko xam ne Sénégal lu mooy intérêt sénégalais yëpp mais PSE bi dafa dajale ay benn benn arabisant yi ko ci xalaatal man mi ci la boole wutul ñuy bureau wutul wutul ñu ay matuwaay wutul ñu lum ñuy jàppale chaque mois ci ci PSE bi ñu nit ñu ko ci xalaatal xalaat yu am solo lim ci jubluwoon mooy bañ a négliger benn aspect ci PSE ndax xam nga am na aspect <laughs> financier am na aspect économique mais am na aspect social am na aspect religieuse ndax Sénégal kenn mënu koo tabax Sénégal ëllëg te ci diine ji ak askan wi kon a sëñ Mouhamed yàlla yàlla gën naa kattanal gën naa dëgëral ba li nga bëgg liggéey liggéeyal askanu Sénégal ci wàllu xam ak xam ne yàlla jàppale si li nga bëgg a liggéeyal président bi ci wétali ko ci plan Sénégal émergent ci développement Sénégal ci politique social bu Sénégal yàlla jàppale si ñu ñaan aussi le président de bi mu gën naa bàyyi xel gën naa fonk gën naa teg sa wàccuwaay ndax bokk nga ci ñi nga xam ne bu bu fekkoon day wax ak yow ci wàllu éducation di wax ak yow ci wàllu social di wax ak yow ci wàllu Thiès du gërëm du réer wasalaamaaleykum wa rahmatullah <coughs> je voudrais euh, remercier mon ami et frère de, très longue date, vraiment de, nous avoir euh, associés à cette euh, belle célébration doublement importante à notre avis. Doublement importante parce que le premier aspect de cette cérémonie-là, à, notre, avis, va, dans le sens de la célébration de la journée des droits de la femme le second aspect de cette euh, cérémonie euh, va dans le sens de la célébration d'une grande victoire. Alors, d'une grande victoire que nous a euh, procuré notre mentor, notre président, notre leader Macky Sall lors de ces dernières élections présidentielles. Voilà donc les deux niveaux.

la Ndeye Diop responsable RPM di responsable ci Thierno Alassane dëkk fii ci r léegi Pape Modou ngi tamit nekk ci R100 ñu bokk même quartier muy sargal jigéen léegi ñu invité ñu invité d'honneur woo bokk moom bi kon mënu ko bañ a ñàkk wuyu parce que APR Thierno kenn mënu ko ci côté génn ndax Macky Sall dañ koy fal ñun ñoo ko faloon ñun waa kër Thierno Alassane teew bi ne dama teew ngir teewaayu dëkkandoo ak teewaayu ci cadre tamit nekk ba tey ci Thierno Alassane Sall mais comme suñu nit la suñu dëkkandoo la ñoo sës diggante Pape Modou ak Thierno Alassane Sall amul benn réeroo kon man loolu laa fi ñëwee tey. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ci nekk sa tur man la honorable député Maïmouna Sène euh, tey jii nag ma ñëwoon fii doon accompagner si sama camarade de parti sama frère le DG de l'ITECOM Mamadou Dieng di président mouvement ASP tey jii di journée bu spéciale mën naa ne ci ñun ñi jigéen ñi ndaxte 8 mars bi moom lay féete ak jigéen ñëpp walewaale ci tamit di fête victoire bi ñu am ci élection yi ñu génn ndax euh, tamit loolu jigéen ñi def nañ ci liggéey bu am solo ndax keroog boo déggee King Fat ba président Macky Sall ñëwee foofu nee na euh, élection yi jigéen ñi jàpp nañ ci te xam na ne jigéen ñi ñoom ñoo ko falaat kon yaakaar naa ne tey bu Mamadou ñu ngi wootee def lii ci tànku mën naa ne ci tànku président la topp ba mu ba ñu sante yàlla junni ci Seydina Mohamed sangu sang yi ni sant suñu ñaari waajur ñu ngi ci euh, monsieur directeur général de ITECOM en même temps président du mouvement ASP Alliance pour un Sénégal prospère nekk bokk ci mouvement su Benno Bokk Yaakaar bi muy nit koo ni nit ku nit ku am vraiment ci doomu man nak dañ ma yoni ki ma yónni moom defe naa Thiès kenn ko laajte muy madame Ndeye Tické Diop directeur général de l'ANAM responsable APR bu ties fini nek ties Thiès Ouest euh, amoon yéene trop trop téwé bis bi parce que euh, monsieur Mamadou Gningue daf ko def honneur niko yow yaay sama invité d'honneur du jour tay vraiment muy journée bu spéciale vraiment ci bés aussi ak moment bu spécial. li fi dajale nag mooy Mamadou Gningue dafa day sargal jigéen ñi muy lan les responsables qui sont autour d'elle de lui muy responsable femme yi nga xam ni ñoo nekk ci mouvement ASP bi vraiment honoré ci jigéen te jigéen yaakaar naa mooy yaay mooy soxna mooy lépp kon képp ku ñu sargal rek vraiment sa bopp ko defal. ñu àndandoo rek bokk maa ngi lancé appel ci unité bi vraiment ñu nekk benn xàccandoo dóorandoo yaakaar naa yàlla ndam rek la ñuy may bu soobee yàlla incha allah. alors li ñu sant yàlla ci ma ne Ahmed Mbaye la bokk mouvement Fal Askan bi ak bokk mouvement taxaw jëf ak Macky alors euh, dañuy ñëw fii tey euh, fekk si sunu frère Mamadou Gningue euh, ci sargal bu ñuy organiser fii après les élections du 24 février. ñu sant yàlla di ko félicité di félicité ñëpp teewal fi aussi monsieur le maire Talla la ñi nga xamante ne Mamadou du am la euh, léppam la nit ku baax la Mamadou ñu koy félicité di ko encouragé gis nañu engagement yi mu jël sur le terrain social bu muy def ak ni muy jàppale askan wi wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu di ko félicité euh, di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér.

le dal journée de la femme nak mo waral tay suñu bi ak président de la république ak euh, élection yi mu am ndam journée de la femme le jigen internationale journée de la femme kon en même temps merci beaucoup jërë ngeen jëf. ngi leen di leen militant aussi ak sama mbokk responsable politique nga Benno Bokk yakar bu ties ak mouvance présidentielle ak sama militante yépp yi nga xam ni responsable lañ tey ñëw fekk si ma fii ci kër gi ñu toog waxtaanandoo dans l'ambiance dans la symbiose et dans le partage li ko waral nag ñaari événement bu njëkk bi mooy ni que euh, c'est ñëpp xam nañ ni que semaine bi c'est la semaine de la femme on parle de journée de la femme mais la femme est si importante qu'une journée ne suffirait pas pour ne ce pas consacrer ça à une femme c'est pourquoi moi j'ai choisi de les regrouper dajal len tay ci weekend bi di dimanche nga xamni sama femme yëpp ñëpp képp kuma xam xamni man sama àndandoo ak jigéen ñi dafa nekk and bu yagg and bu dëgër and bu am kóllëre ma tànnoon nag seeni leader ñuy téeméeri groupement de femmes yoo xam ne, dama leen a invité woon tey ci kër gi ñu toogandoo añandoo waxtaanandoo partagéndoo des idées conformément à la vision du président de la République son excellence le président Macky Sall qui a consacré l'année, son deuxième mandat, n'est-ce pas, sous le sceau de la jeunesse et de la femme. Et surtout, l'accompagnement des femmes, le leadership féminin et l'autonomisation des femmes. notre mouvement Alliance pour un Sénégal prospère son credo et lors nous ñu vision que nous ko son excellence le président ah, du bis boo xam ne da ngeen di togg wala da ngeen di yëngatu man maa bëgg ngeen toog ñun suñu bopp ñun góor ñi ñu xool ñu leen di sargale toggal leen gàtteel leen waxtaan ak ñoom teg leen ci yoon boo xam ne dina correspondre ak la vision du président beneen bi nag nga xam ne dama ko ci boole ci kontaan ci lool moo ñu célébrer la grande victoire que son excellence le président Macky Sall am ci élection présidentielle bii ñu génn ca ñun waa Thiès ñu ànd ci ak la mouvance présidentielle tey gis nga ni que képp kuy leader ci dëkk bi ñëw nga fi wala yaa ngi ñëw teew wala soo ñëwul yónnee nga sa euh, sa ce représentant représentation au plus haut niveau loolu di gën a traduire symbiose bi nga xam ne amoon nañ ko déjà ci biir campagne électorale bi mais nekk aussi la symbiose que nous voulons continuer à traduire toute l'année durant pour que ñu mën a au président Macky Sall la majorité dont il a besoin dans la ville de Thiès dans la région de Thiès mais lui donner aussi plus de confort pour mener à bien sa vision et mener à bien, n'est-ce pas, les objectifs qui s'est fixés dans le plan Sénégal émergent 2, mais aussi dans son deuxième quinquennat. kon nag tey may sant ñi nga xam ne ñëw nañ fi di sant bu baax baax leader yi ku lim da mais képp pour xam leader nga ci dëkk bi Thiès wala militant bu buy le président Macky Sall wala nga bëgg Thiès ak tey vous wu nga ñëw fi teewe fi yónnee fi loolu nag lu ci man ma leen di sant leen gërëm loolu nag du sama jëmm rek moo tax ñu def ko mais jëmm président Macky moo tax ñu def ko jëmm wane aussi suñu déggoo ak suñu àndandoo pour traduire Thiès carrément euh, jox teg ko ci loxo yi nga xam ne moom la moom la bëgg ca tànk yooyu moom lañ nekk su soobee yàlla loolu dina am. xam nga les femmes moom dañu wax ne le développement d'un pays dafa dépendre. ci l'équilibre qu'on donne euh, n'est-ce pas à la gente féminine parce que si un pays est composé à plus de 52 de femmes si nous voulons nous mu obligatoirement il faut se nous ci ben tank, muy tank gourbi, nous ñu doxal benn moi muy pour mun am il faut nous autonomiser les gens. parce que il faut ñu renforcer les capacités. i capacité loolu nous beaucoup na suñu activité phare nous ñu la formation n'est-ce pas profonde des femmes qui dit égalité des femmes dit aussi formation et dotation de capacités Lolo, qui une capacité suñu programme mais dañ koy renforcer des moyens économiques parce que qui dit autonomisation dit dotation de moyens économiques à un accès facile accès bonne, qui le le président décidé d'allouer un budget important de plusieurs milliards si je ne me trompe pas le président a dit qu'il va donner 3 milliards par an dans les cinq prochaines années pour jox aux femmes pour renforcer leur autonomisation lool nak ñun dinañ ci and ak mom jël aussi lu ñu amaloon suñu bop parce que ki lañ doon def ñepp ni ces cinq dernières années euh, si on fait la moyenne nous avons donné plus de 50 millions de financement aux femmes nous comptons renforcer ça pour venir en appui aux femmes tel que n'est-ce pas le président l'a aussi dit les formations aussi inshallah allah dinañ ko renforcer euh, ba nga xam suñu jigéen ñi dinañ tollo ba nga xam ne ñu waxati égalité l'autonomisation des femmes mais góor ñi continuer su soobee yàlla di daw ci gannaaw jigéen ñi ndaxte bis bu jigéen ñi doxee rek dëkk bi dox. les mouvements moom xam nga mouvement ku ko tudd rek mooy koo xam ne dafa fekk ñoo xam dañoo jàpp ba ba pare ñu ñëw dolli leen donc ñun mënuñoo jóg ne dañuy séparer mouvement yi ak les acteurs politiques de paix. ñi koy wax ñëpp dañoo jóg pour seytaan man personnellement kenn mësuma dégg may wax lu la séparation des mouvements politiques et de la mouvance présidentielle parce que ñooñu ñi bëgg diviser la la la maison de la l'APR et la maison de la mouvance présidentielle ñoo koy wax man à titre personnel je n'ai fait aucun interview direct à un journal quelconque ce que j'ai fait peut-être les gens ont capté des discussions autour d'idées principales mais man ku ma xam xam ne man boole nit ñi mooy sama dox dox jàmm mooy sama tànk ak waxal nit lu baax mais duma koo xam ni damay nekk di wax pour séparer ay nit maintenant nag l'analyse de la défaite ou en tout cas de l'avancée de, notre résultat, parce que quoi qu'on puisse dire, ce qu'on a obtenu, comparativement aux villes où il y a des leaders, il faut tels que Zigenchor tels que, tel que, euh, qui tout va Touba ak que Thiès quand même on a réduit l'écart qui pouvait être l'écart tombe qui est ba am 40 voix 40 000 voix yu ñu yoo google qui est ko président de la République 40 000 voix moo pour Zigenchor les li li li Sonko am Ziguinchor ñun waa Thiès li contribution ci président ëpp na li nga xam Sonko Ziguinchor am Matam li am li am ëpp yëpp yi gagné ñun ñi nga dañoo wax dañoo ñoo voix au niveau de la contribution du président n'oublions pas que la région de Thiès compte 900 900 000 électeurs deuxième plus grande ville pratiquement de l'électorat si nous arrivons à être

di où les mouvements ak parti le mois et le commencement de l'hécatombe mandal j'appelle à la paix à la sérénité je n'ai fait aucune interview pour discréditer qui que ce soit ce que j'ai fait c'est une analyse qui n'a absolument rien à voir une interview accordée à un quelconque journal wa mouvement ASP mom xam nga mi ngi sa cinquième année mu contribué donc pendant cinq ans dans le septennat du du président Je ko sampé rek at bi ci top un travail pour am solo ba nga xam ni tey jàpp nañ ni lu ñu yëkkati Thiès ci liggéey pour liggéeyal réew mi liggéeyal président de la république ñun nous serons à l'avant-garde ñu woo ñu ci dañ ci dugal suñu loxo ñàkk ñu ci woo dañ ci dugal suñu loxo local yi di ñëw nag xam nañ ni que enjeu bu am solo la enjeu local nag pour le moment on est à l'évaluation n'est-ce pas de la victoire du du président nous allons évaluer discuter voir un peu les positions des uns et des autres et voir dans les mois à venir quelle stratégie mettre en œuvre mais li am solo que nous nañu fexé ba mouvance présidentielle bi nek ben mouvement et parti politique ben pour ñu mëna jël la victoire des mairies tek ko ci loxo parce que Thiès suñu bayé président Macky Sall am la gouvernance euh, centrale au niveau local si égaler ces ces ces tentacules dans la ville ce serait une grosse perte pour nous les Thiessois moo ñun de la mouvance présidentielle je lance un appel solennel à l'unisson ñu bolo Benno Bokuyaka et mouvance présidentielle qui sont des partis qui sont qui sont des, des entités qui sont venues appuyer kon ñun coow du mun jóge ci parce que ku ñëw di jàppale munoo indi coow ah mais nag ku bëgg a jàppale ñu ne nag pas fi jàppale ah su Boba, xëy na leneen mun am moo on évalue on voit les actes que poseront les uns et les autres et Inch'Allah je pense que nous allons vers le droit chemin pour redonner au président Macky Sall la victoire au niveau des locales et la victoire au niveau de toutes les villes du Sénégal pour que li mu yéene Sénégal mu mun ko eggale ci jàmm li mu yéene réew mu mun ko eggale ci jàmm parce que nag nekk à la tête ki yore woo ça peut être un problème comme ni ñu ko gisee woon dans le temps des blocages intentionnels yoo xam ne ay maire yu bëgg a wane ni président liggéeyul mun na ñoo bloquer des intentions yoo xam ne président daf ko amoon pour la ville de Thiès man nag teg naa sama tànk dinañ dem ci local yi incha allah mais ànd ci ak ñëpp ñi nga xam ne dañoo fas

les gens de la paix et de la paix, ils ont joué un rôle important, mais les mouvements sont venus contribuer comme Ninkov, Amon Yene, Les amoon yéene je ñaan renforcer leader yi fi nekkoon a euh, mbiram ci la jeunesse de Thiès gën a tàllal loxo à Thiès comme il le faisait mais mu gën ko renforcer aussi les positions des hommes politiques tant des hommes de la mouvance présidentielle de de paix, mais aussi donner des possibilités à d'autres personnes qui ont envie de contribuer, la possibilité de pouvoir jouer un rôle encore plus important dans l'avenir de la ville.